ay révélation yu doy waar ci candidature Ousmane Sonko le bilan du président de la République affaire pétrole ak gaz ci seen entretien exclusif ak ancien maire bu Guédiawaye nekkoon tamit directeur général caisse de dépôt et consignation Aliou Sall di rakku njiitu réew mi son excellence le président de la République. xam nga Ousmane Sonko am na huit d'accusation li gënoon yomb bu fekkoon na état mun na imposer justice calendrier dañ koy woo léegi suñ ko ñu daan ko defe naa quand kaawu Sonko moo gën a diis kaawu Barthélémy Dias bi nga xam du candidat kon ne Khalifa ak tournée mi yëpp ci biir Sénégal du nombre de pare na citoyen moo koy manqué ba muy am recours ci ay parrainage député Khalifa quand même bu fekkee ne pendant juróom benn weer saa yi ñu yeewoo tudd sa tur bi ne yaa jël gaz bi jël nga six mille milliards xam nga loolu sax nit ñi parfois dañuy ànd ak euphorie ba duñu ànd ak xel bu dal waaye xam nga dafa am façon accusation yoo xam ne soo ko déggee rek da nga war a douter nuire nañ ma nag bu baax au plan de ma moralité de ma dignité et waaye tey jii euh, damay am dépassement bale àq waaye nag tourner la page. lundi bi lay doon 25 décembre 2023 à partir de 17h sur Leral TV, Leral.net et Leral FM.